Sénégal ndax fii ci Touba ay ndaw ay góor ay jigéen ay kilifa diine dañoo inventé benn liggéey ba nga xamante ne ni ñu ngi ko tuddee sagalum diw artisanal ci Sénégal liggéey boobu nag wax ANSD buñ ko seetoo 2017 2018 def ci rapport dañ ci at moom nga xam ne sax ñetti weer la ñu liggéey créé na 4172 emplois généré 22 virgule 21 milliards chiffre d'affaires daal di indi ci suñu PIB suñu koom-koom 0,1 pour cent loolu su ma koy xayma day mel ne at moom milliard bu suñu réew am ci koom-koom million ba ñu ñoo ko ñu ñoo ko tekki yaakaar naa milliard am na bari nañu ko am waaye doo gis ku sànni million pour liggéey bi am na solo lool. ah équipe bi nga xamante ne nag ñoom ñoo la ñu fal ah man bi nga xamante ni man lañu jiital ma ànd ceeg ma membre bureau bi yëpp am ñu ab sas am na ñu sas. waaye nag yaakaar nañ ni bu ci ñëpp jàppee loolu dinañ ko dinañ obstacle yooyu dinañ ko surmonter Rasiyaat nag deful politique waaye nag dañoo am gis-gis dañoo am gis-gis bu rafet ci gis-gisu président Macky Sall gis-gis boobu mu firndeel ko ci plan Sénégal émergent ndax ndaxte plan boobu moo tax ñun ñi ñëpp ñu am fit am am courage am yéene investir ci secteur transformation euh, bi nga xamante ni ci leen nekk waaye nag foog mu wax leen ni ci jamono yii ñuy wax ak yéen suñu liggéey bi daa am ay gàllankoor ndax ñaari at yëpp liggéeyuñu ñaari saison yëpp liggéeyuñu te loolu lu ko waral mooy daf koy am ay gat yoo xam ne dañ fee ñëw la ñu waroon a liggéey ñu yóbbu seen réew ñun ñu toog amuñu lu ñu liggéeyee loolu nag muy nekk lu lu rëy ndax état bi nag ñu koy ñaan bu jubbanti loolu waaw accord bi ñu am ak Chine mu xool nu ñu koy jubantee ba ñun du ñu teree liggéey ndax kat dañ ni bala ngay laax jaay laax lekk te loolu bien que nit ñi dañoo yaakaar ni day profiloo baykat bi waaye ku am gis-gis tuuti di nga xam ne baykat bi mu ngi ciy ndax fii may wax ak yéen baykat bi mu ngi jënd litre bu diw ñaar téeméer ak ñaar fukk te bu fi gerte gi desoon daf koy jënd six cent cinquante ba sept cent franc pour yaakaar naa baykat bi mi ngi jooy te li koy tax mooy avantage bi yaakaaroon ne ñu ngi am ci jaay bu gerte bi jaay chinois fii may wax ak yéen béykat bi wóor ko ndax dina am jiwu te ku ne xam ne ni jiwu moom bu amut ah mbay du mën a amaat te baykat bi fii may wax ak yéen am njiwam wóor parce que gerte gu baax gépp dañ ko yóbbu bitim réew kon yaakaar naa état war naa am vision boobu xam ni lii ñuy def du baaxul ci baykat bi baaxul ci ñun baaxul ci Sénégal donc ñu ngi woo président de la république parce que ñëpp gis nañ ni mi ngi woote pour ndaw ñi liggéey ñëpp mi ngi woote pour ñu def consommer local ñu ngi tàllal loxo wax ni ko kat fii nag wax dëgg fa yàlla woote daal ñu ngi ko ciy xaar pour que ñu jubanti li ñu war a jubanti pour que ñëpp mën a liggéey pour que Sénégal jëm kanam jërë ngeen jëf